nuyu naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci yéenekaay feebar bi feebar bi ñëpp di ko tudd ci askan sunu gaal la koy saafara gaañaa nga ca moom tawat sii di coronavirus li nga xam ni moom la ñu jàpp ni moo ko fi mën a jële leen lu dul yilee vaccin te yooyu la vaccin askan sunu gaal fas yéene ci tànn lu tolloog juróom gën a fës li nga xam ni moo di marché bi ngir mën a yëkkati ba ca kaw ki nga xam ni moo di coronavirus ni ko sulaay njaay ci suuf li nga xam ni képp ku ci àddu boo moytuwul ñu yëkkati la ba ca kaw ni la sulaay njaay ci suuf ka nga xam ni moom la ñuy saaga ko menacé du kenn ku dul Gabriel Kane moom nag li nga xam ni moo waral sabab ñu gi nga xam ne moom la addu jëmale ci mbirum Ousmane Sonko meek Adji Sarr nu sukkandikoo ci Gabriel am na ci ay nit yu baree bari yu bëgg a wax bëgg a yëy yàbbi ci mi la mbir waaye li waral sabab ñi ma wunu cee wax moo di tiit gi nga xam ni moom la nu tiit kenn ku nekk ci ñoom bañ cee wax aw jaabalaas lu nu lay toppee ñu baree bari xam ci lu bari waaye ni na puus ak moom leeral ne moom mi nga xam ni moo di Gabriel yoon may na ko mu daal di yàgg te lu nu fàng kenn du ko jeex kani jeex na te li jeex ca moom di fan ya mu doon fanaan ca kaso ba leeral ni kooku Karim Xurum Xaax lay wuyoo moom Karim Xurum Xaax nag li nga xam ni moo taxoon ñu ne ko napp su yóbbu ca kaso ba mooy ni dañu koo fekk ca buntu kër yaayam mu taxaw ñàkk sol masque tax ñu ne ko nappuus patam patamee daal di yóbbu kaso ba yéenekaay bi di fësal ak di xamle ni Karim daal di nay libre leeral ne bu nu sukkandikoo ci ki nga xam ni moo yore communication di mouvement nitu dëgg Karim Xurum Xaax ci jëmi boppam am masque ma nga woon moom lañ ko doon téye ka ñu téye te jëkkër jëni làbb ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr moo di jabari l'administrateur général du parti Pastef leeral ne Birame Souleye Diop jàpp nañu jabaram yóbbu ca kaso ba mbir ma naqare ko mu yëkkati ay kàddoom jagleel askan bi loola ma ngi ko def ca page Facebook am la mu ca wax ku xëy di dox doxam dem di liggéey nga daal di ko na puste na waar la doy waar moo di la nga xam ni moom la moo get wax ci mbirum Ousmane Sonko mi moom moo ne mbir mi li ci xew de ñëpp xam ko te loola kenn du ko weddi moo di njiital njiital parti pastef bii di Ousmane Sonko demoon na ca salle de massage ba ci jamonoy couvre-feu bi loolu la ci ñëpp xam la ca des nag kenn xamul lu mu doon xew ca biir gaañaa ngay wax di mbii coo ko mbàlloo kenn mun la ni lii la ka nga xam ne lu ñëw mu wax ca bu ca seetul wax la ca sarax ya ca war a génn mbaa mu def ca analyse am wax la mu ca xam la ca ñëwagul ak la ca yoon wa def na analyse am ci mbirum Ousmane Sonko mi moom Selbé Ndom Sonko dafa xaw a juum moom kay daa juum juum ndax koo xam ni moom lañ doon yaakaar mu nekk doomeelu de la fa doon def sondage génn nekk troisième waaye lu moo wute ci salle de massage ba nu ko faa taxal nekkaay bii di leeral ne Selbé Ndom kàddoom ya ba tey jagleel ko mbir mi moo di Sonko yor na ñaari jabar waran naa dugg ci néegam wala cab saalam wala sax ca këram mu def fa salle de massage segam ndiggam day saa su nekk muy woy soxnaam naan leen kaay leen bësal ma saa ndigg li nekk Adji Sarr ana loo xam ci moom mu ni Adji Sarr dafa yëngal yëngal dëkk bi taal dëkk bi kay bu waxul dëgg lor na ma lor na leen lor na askanu sunu gaal nga xam ni ñoo woon woon presse bi fas yéene waxtaan ak askanu sunu gaal ñooña ñenn lañ ci ñu bokk ca Ousmane Sonko waaye dañu mujjee seen conférence de presse boobee moo di on continuera avec les réseaux sociaux neneen yeggalee sunu waxtaan ci réseaux sociaux yi nga waral sabab ko moo di police yi ci jëmi boppam ñoo ñëw dagg seen waxtaan woowee nga xam ni moom lañ doon amal ngir di défendre ak dooleel ki nga xam ni moo di seen militant bii di Ousmane Sonko ni dañ koo fas yéene jàppale ba jusqu'au bout ña nga xam ni ñoo jàpp te bawunu gëm seenub sàng seenub seeni gët ñooñu ñooy waa mu jël ay nag yu am solo ñetti nag yoo xamante ni kenn mësu koo gis te nag yéene kaay bii di Sunugal 24 ne ras ba sax dafa raam ñu defe ni ca la yem mu teg ca ñaari giléem guddaay baak riyaay ba foo ko natt weesu na ko yéene kaay bi nee yemu ca ko luñ te teg Sunugal la ko waral sabab ko moo di dañuy fàttaliku le 14 février 2016 la nga xam ni moom la sëriñ Béthio Thioune waxoon soxna yi la gaal 24 ne yooyu la baat ak mbég ña xëy ñàkk yewoo wala moo di waa njaareem ñaari école yoo xamante ni sàmba boo yi sàcc see def ko te ñaaw teef yi dañu faa dugg di leeral ne daal fay sàcc lu toll ci 590 400 francs CFA loola ña ngi ko sàcce ca benn école ba di lycée d'enseignement général bu Ndayane fexe ba dugg ca bureau intendante ba daal di dajji coffre ba institut privé Notre-Dame directeur bay fësal ak di xam la ni moom itam sàcc nan lu toll ci trois cent mille sàcc yooyee ñu leen di wër ngir yóbbu leen ci kaso bi ka nga xam ni moom la ñu yóbbu ci kaso bi yéene kaay bi ne ndaw am lu toll ci fanweeri at ak juróom sànni doomam ci foos foosub sëriñub daara ni ci waa këram moo doon génn rek daal di gis lu mel ni luy luux luuxi ci foos mu daw wooyi sëriñ bi sëriñ bi ñëw xool gis tànkub liir naka noonu la woowee ña nga xam ni ñoo koy wàllu ñu wàllu ko génn boobi la liir yéene kaay bi fësal ak di xamle ni góor la sànni jur sànni ay waay waay waay bu subaa jàmm tëjal sëy laat fiir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem jaa ngeen jëf moom chaque jour rek chaque jour rek lay ñëw chaque jour rek lay nekk kawteef chaque jour rek lay nekk dës lii kenn xamul lu mu doon rek kenn kenn kenn xamul lu mu doon rek kenn xamul lu mu doon rek bii dëkk ah jur di sànni jur di sànni jur sànni jur sànni ba kañ bu la leer ni boo juree sànni ko koy jër ngi xam sax loo bëgg a wax wax danoo doy waar yéeme na moom vraiment lii moom yéeme na trop trop trop trop trop am sa doom ni mu neexee nga jur sànni ndax lan daa daa juddoowul cib sëy moo xam ne da ngay am jëkkër di am far nga bañ am jëkkër yem ci far yi soo xam ne da ngay jur di sànni nga xool noo def ba bañ a jur c'est simple quand même mais nag doy na waar vraiment doy na waar. ñu ci interpeller population bi yëpp njaboot ki ñu gën a vigilant waat gën xoolaat avortement yi bari na ñii ñi ñi ndogal lay doon ñu avorté ñi ci des ñoo koy sabablu seen bopp ba def ko ndax lan ñoom day neex rek ñuy def muy neex ñuy def ba jëlee ci doom bëgg koo rey ah waaye loolu du lool du lool du lool du lool du lool du pexe waaye xawma du pexe la ñuy wax xawma du solution loolu du solution dama ni ñoom sàkkuwun juddoo ci yéen kon bu leen leen faat wax jàngoogu waaye nag mbokk yi coowul aji Sarr ak Ousmane Sonko moom fi mu toll nii yëngal na dëkk bi yëngal na dëkk bi de. tet mais man li ma ci jaaxal mooy menace yeeg saaga yeeg menace de mort yeeg yu ni mel ndax ci revue de presse bi yéen a ngi dégg li nga xam ni moom mooy. menaces yi nga xam ni euh, ñenn ñi def nañ ko. waaw def nañ ko def nañ ko jëmale ko ci euh, la dame Gabrielle Kane ah gars yi mbokk yi nag mbokk yi nag bu dee ni ko wax ñu menacé la wala ñu am ñun la bëgg def moom loolu day xaw a doy waar. waaw nañu xool rek xam fu wànnent ku wànnent du mujjee ki gëtëm waaw nan nan nan xool rek xam fu wànnent yu mujjee ki gëtëm te képp kuy analyser ñu déglu la ngay wax képp kuy analyser nañ la déglu xam bu baax a baax a baax la ngay wax. mën koo mën koo mën koo mën mën cee jëriñu ndax mbir mi moom lépp njariñ la rek waaw en tout cas nañ ci teyaat bu baax a baax a baax a baax jëlaat suñu matukaay ci mbir mi waaw nañ ci teyaat waaw euh, kii it moom nee na moom it euh, dañoo dañoo jàpp jabaram diram su lay jóob waaw nee daa xëy di liggéey rek ñu kar ko waaw yóbbu ko dig noonu kéemaan la ku wax lii wax la ca des waaw ku wax lii rek wax la ci des ñii di menacé fii kii ñii di jàpp fii kii réseaux sociaux yi boo fi duggee saagaan tey mel ni tulleeg maal rek dangay def beneen émission boo xamante ni sax laalewut sax ci mbir mi mais da ngay gis nit ñi di commentaire di saaga di saaga kon nag gars yi nañ nañ ci nañ ci nañ ci delloo siwaat suñu xel bu baax a baax daal moo gën a wóor kon nag mbokk yi jàngeen jëf